ndax nag ñi nga xam ne ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nee nañu suba ci àllarba ji dañuy amal manifestation ñi nga xam ne tamit ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom Ousmane Sonko Barthélémy Dias ñoom tim nee nañu suba ci àllarba ji dañuy amal manifestation loolee moo tax journal bi xëy fësal si xëtam mu njëkk na mercredi de tous les dangers un bras de fer de tous les dangers confrontation inévitable diggante pouvoir bi ak opposition bi maanaam jàppante jàppante munta ñàkk de jàppante munta ñàkk diggante opposition bi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk pouvoir bi Barthélémy Dias maire bu Dakar nee mu doomu Sampol Dias bi nee na nag jamono ji xeex bi commencé na suba ci àllarba ji la xeex bi di commencé ngir nag ñu xeex jàmmarloo ak Macky Sall ndax jàmmarloo gu Macky Sall mun ta ñàkk il faut ñu jàmmarloo ak Macky Sall ngir nag du def ñettalu mandat ci bopp réewum Sénégal xeex bi suba lay commencé te nag askanu Sénégal ñoo ko mën a jóg fajal ko seen bopp yéen a kaay gii di l'info nee na en tout cas li am ba des daal danger am na giraawal yi am na ci élection Aliou Ndoye maire bu Dakar Plateau Aliou Sall rakku njiit réew mi di président Macky Sall Aminata Touré ñoom ñii nee nañu nag danañu jàmmarloo ak ñoom Ousmane Sonko maanaam danañu jàmmarloo ak waa Yewwi Askan Wi te ñoom nag ba ñu ñu ci dara yéen kay gii di la témoin ñu koy fekk fa Mamadou Oumar Ndiaye journaliste nee na nag lépp lu xew ci réew mi na leen leer ne conseil constitutionnel la te nag conseil constitutionnel bii daal moo waroon a jël nag fullaam ak faydaama jël ay responsabilité am lànk li nga xam ne moom la direction générale des élections def ak Antoine Diome mii nga xam ne dafa far ba maara de taali te nag jamono joo xamante ni njëg yokk na ba maara de taali Sénégal yi sonn jamono ji nag soxlawuñ confrontation soxlawuñ violence ci réew mi jamono ji nag talool nañ lu ne ci réew mi ba mu des nag ay violence kàddu yi Mamadou Oumar Ndiaye la yéene kaay gi ñu xëy fekk fa am Amsatou Sow Sidibé ak maître Assane Dioma Ndiaye ak professeur bu Mboupa ñoom nag d'accord ñu benn yoon ci lii nga xam ne conseil constitutionnel def nañu ko Amsatou Sow Sidibé nee na lii man musuma koo gis lii nag dangereux la lii lu doy waar la lii nga xam ne conseil constitutionnel na daan nañ koy jël ni dogal loolee mbir la moo xam ne garaaw na génn xeetu garaaw goo xam ne fu ko waaye nat daan na koy passé maître Assane Dioma Ndiaye na nag lii kenn mënu koo expliquer nguuda mbub ne kenn mënu koo comprendre yéen a kaay di Vox Populi ne na en tout cas li am nga xam ne ñooy acteur politique yi ak société civile bi dal nañ bu baax a baax ci kaw conseil constitutionnel la yow nan nga mën a nekkee fii di jëlub dogal naan Benno Bokk Yaakaar waaw yéen seen titulaire yi mooy dem seen suppléant yi dem nga naan ko coalition Yewwi Askan Wi waaw yéen seen titulaire yi di dem waaw yéen seen suppléants yi mooy dem journal bi ne waaye lii li li lii kenn musu ko gis ci réew mi Ndiaga di expert électoral la moom nag lii daal nee na coup d'état la ci lu jëm ci wàllum démocratie ñi nga xam ne nag ñooy waa Y'en a marre ñoom nee nañu conseil constitutionnel jamono ji dugal nañ Sénégal ci musiba ma bokkumba l'observateur ñu fekk fa Alioune Tine Alioune Tine li nga xam ne moo xewoon Sénégal ci mois de mars mois de mars li xewoon ci biir réew mi waar lu ko gën a doy waar mën naa am ci réew mi yéene kaay gi di ñu koy fekk fa sëy baani sungo xelam màcc jëm ci wàllum constitution daat nay wax ne constitution bu Sénégal bii dañu koo war a dissoudre dañ koo war a jëlee ci réew mi yéene kaay a ñi nga xam ne ñuy waa Askan Wi ñoom nag nee nañu ñu jox leen autorisation ñu ñàkk leen a ñoom seen ngañ ñi nekk ñu si ba ñu ñi nag nob bu ñu saañum geera yéene kaay gi de daal di koy taala yéene kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa Mamour Cissé PSD jant bi nee nag moom bëggul benn yoon cohabitation am ci assemblée nationale yéene kaay gi xëy xibaar moom réew mi ko di jee nee na bi daat nay wax bi ñuy màggal Pentecôte ni ki démb ca altine jee ci pèlerinage martial bu Popenguine bii nag nekk téeméer ak fanweer ak ñeenteelu édition évêque bu Thiès di monseigneur André Guèye moom nag daat nay dal ci kaw ñi safara jéema nag fonde li nga xam ne mooy famille yéen kaay gi di enquête nee na état dafa soxla lu toll ci fanweeri milliards loolee moo tax nag état bi a jaay lu toll ci ñetti hectares ci hôpital Dantec hôpital Dantec bii la état bu Sénégal bëgg a dagg lu toll ci ñetti hectares daal di koy jaay dafa soxla trente milliards yéen kaay gi esat xëy di ñu xibaar naan ñu Casa Sport jël na championnat bu Sénégal Njàmbur bu Louga dem na deuxième division ñaari tali dem na ñetteelu